أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحلل منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal bëgga ñëwaat ak yéen rek ni ñu ko baaxoo defee di ko ànd ak yéen ci ay bis bu jot ngir fàttalente téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde Nahju Qadaa'il Haaj te suñu bind bu mujj ñu taxawoon ci fi nga xam ne ci la sëriñ bi di leeral ab donga naka la war a mel ci kanam ab sëriñam moo xam sëriñ bu koy jàngal la muy seexu taalim wala sëriñ bu koy defar la muy seexu tarbiya wala sëriñ bu koy yéege la ci suñ boroom muy seexu tarqiya ni nga xam ne noonu la ci ab dongo war a melowoo waaye ni taalibe bi war a melowoo ci kanam sëriñam moo xam ñetti sëriñ yooyu benn bu mu ci man di doon sëriñ bi doon wax foofu ne saa bu la ab dogal jiitalee màng la ba nga egg ci kanam ab sëriñ boo xam ne ku xam xaqiqa la muy tasawuf ba pare te di ko jëfe nee na na nga dox ci ay waawam rek di dox ci ay ndigalam te lépp loo xam ne moom nga daan jëf lu ko jiitu ngay gise ak moom na nga ko teg ci suuf te di déglu ay waawam di déglu ay ndigalam di bàyyi ay tereem ba sëriñ bi mu wóole foofu sax ne yow taalibe bi nga xam ne yaa yow la suñu borom bi subhaanahu wa taala sédd sëriñ bu mel noonu nga dox ba daje ak moom sëriñ bi ne na na nga mel ci kanam sëriñ booba mel ni am niiw rek bu ñuy sàng ci loxooy ka nga xam ne moo koy sàng nga xam ne niiw bi fu ko ka koy sàng jëmale rek foofa lay jëm waaye moom du am xemmemteef ci aw benn côté ndax mënalut boppam dara kon yow mi nga xam ne yaay taalibe bi nekk ci kanam ab sëriñ sëriñ bi ne na jikko jooju rek la lay digal nga takkoo ko soo ko taxoo mën ngaa jariñu te it boo génnee mën ngaa jariñe kon ci bind boobu lañ taxawoon ñuy continuer suñu bind ab tay rek sëriñ bi di continuer di wax ne wal axu mbokk xaqan kay dëgg-dëggi mbokk wal xaliilu ab xarit sidxan kay dëgg-dëggi xarit àndaru moo gën a néew min kulli xalilin ci lépp luy néew xaqan ci lu dëggu sëriñ bi nee na mbokk day mi ñuy wax ne mooy mbokk dëgg-dëgg wala xarit bu ñuy wax ne kii dëgg-dëgg ab xarit la day nee na loolu de boo koy seeti jamono moo gën a néew li tax mu ne la moo gën a néew nag dina la ko wax ndax dina la leeral mbokk dëgg-dëgg buñ ko waxee wala ab xarit dëgg-dëgg buñ ko waxee naka la war a mel ci ki nga xam ne moom la mbokkool wala ci ki nga xam ne moom la xaritool mu ne kooku day fa huwa mooy ki nga xam ne allazi ka nga xam ne ka xawli man ni ki waxi ka nga xam ne jalaa wuññi na alxalaka ak lëndëm inna axaaka naka sa mbokk alxaqa kay dëgg-dëggi mbokk man mooy ka nga xam ne yasaa dana dox wala dana jëf maaka ànd ak yow waman ak nga xam ne ya durru dana lor nafsahu boppam li yan faaka ngir mu jariñ la nee na mbokk dëgg de buñ ko waxee ki nga xam ne moo ko doon leeral day nee na wuññi na lépp loo xam ne moo ci lëndëman lépp loo xam ne moo ci leerutoon ci mbokk leeralal nañu ko ndax wax nañu mbokk ni nga xam ne noonu la noonu la war a mel waaye wax nañu it ab xarit ni nga xam ne noonu la war a mel moo tax mu ne mbokk mooy ki nga xam ne jëf joo dugg rek tàbbi ca bu fekkee ne jëf ju baax la dina la ca fekk jàppale la ba loola sutti waaye bu dee ab safaan dana taxaw fexey ba nga génn ca safaan boobee waaye it mbokk mooy ki nga xam ne day lor boppam ngir jariñ la waaye it ab xarit noonu lay mel mooy ki nga xam ne mën naa lor boppam ngir jariñ la mën na lor boppam ngir jariñ la su fekkoon ne daa am lor yoo xam ne dafa jëm si ci yow te mu man koo tegoo moom dina ko tegoo ngir lan ngir mbokk gi mu doon ci yow wala xarit gi nga xam ne moom la séq ak yow doon ko ci yow kon ne na kooku moom mooy mbokk dëgg-dëgg wala kooku moom moo di ab xarit dëgg-dëgg waman te it moo di ka nga xam ne isa raybu zamani ndeem sikkus jamono saddaaka xar na la maanaam tasaare na la chattata te xotti la te xotti la fii ka ci yow samlahu mbooloom li yajmaaka ngir mu dajale la ne na it mooy ki nga xam ne saa boo xamee ne sikkus jamono de dab na nit ki sikkus jamono dab na nit ki maanaam àdduna ja jatt na nit ki ba andil ko ay jafe-jafe yu baree bare muy dund ci ay tolof-tolof ne na kookee dina jug ngir takkaat la dajale la defaat la ba nga nekk wenn say kon ne na kooku mooy mbokku dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne day lor boppam ngir jariñ la waaye mooy ki nga xam ne saa bu la jamono jàppee ba xamoo fooy teg sa tànk boo geesoo gis ko ngir mu ñëw di bokk ak yow say jafe-jafe waaye di fexey ba lépp lu tasoon ci yow mu fexey ba dajalewaat ko waaye jafe-jafe yoo am di ko dund mu fexey ba bokk ak yow jafe-jafe yooyee ba oyofal la ko toll toll toll kon li mu wax foofu ne mbokk mooy ki nga xam ne mooy lor boppam ngir jariñ la loolu mën nañ cee jël misaal saxaaba yi nga xam ne ñoom la suñu borom bi subhanahu wa taala doon wax ne ci alquran wa yuusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa maanaam ñoom saxaaba yooyee dañ doon def li ñuy tudde isaar isaar mooy lan mooy nga gis loo xam ne yow mii day soxla woo nga ko bu baax a baax a baax a baax nga jël ko di ko di ko jox keneen te yow ci sa wàllu bopp soxla woo nga ko te ñoom buñ xoolee loolu ci xasawaat yi sax daanañ ko def ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ àndaan ak moom di xare léeg-léeg bu ci ñenn daanuwaan ñu bëgg leen a joxam ndox kenn ku ci gis sa moroom da ngay jàpp ne sa moroom moo la gën a yelloo ndox moomee su ko defee nga junj ngir ñu yut ko ndox moomee te loolu mbokk yi moom la ñuy wax ne lor sa bopp ngir jariñ keneen kon ñoom loolu ay misaal lañ ci bu baax a baax ñoom saxaaba yi te ñu war leen ci roy bu baax a baax a baax kon sëriñ bi ne naa mbokk dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne saa boo xamee ne jamono jàpp na la moom ngay gis mu taxaw ci sa wet di la jàppale waaye saa boo xamee ne am ngay tolof tolof wala nga nekk ci ay mitit moom mooy ki nga xam ne mooy ñëw jege la waaye di la dëfal ngir lan ngir gën laa wàññi li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne ci nga nekk xultu mu ne wax naa waman mbokkit mooy ki nga xam ne yux fii dana nëbb alxanaa ñaawteef li yar faaka ngir mu yëkkati la nee na mbokk wala ab xarit dëgg-dëgg day suñu koy wax mooy ki nga xam ne day gis ci yow ñaawteef nga jëf ñaawteef ba mu xam ne lii yaa ko jëf wala nga wax ñaawteef ba mu xam ne lii yaa ko wax waaye loolee daf koy nëbb nëpp nëppal ko suturaal la ngir lan ngir yëkkati la waaye ngir yëkkati sa daraja kon nee na mbokk dëgg-dëgg ab xarit dëgg-dëgg nee na noonu lay mel kon ab xarit dëgg-dëgg wala mbokk dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne su gisee ci yow ñaawteef wala mu gis ci yow sikk dana la ko suturaal dana la ko suturaalal waaye dana la ko nëbbal ba loolee muy sikk soosee nekk ci yow wala jafe-jafe boobee nekk ci yow du feeñ ba kenn di ko xam ne na kon kooku mooy mbokk dëgg-dëgg-dëgg waaye kooku moo di ab xarit dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne saa bu la jamono jàppee daal boo gëstoo gis ko waaye mooy ki nga xam ne saa boo nekkee ci ay jafe-jafe boo gëstoo gis ko waaye mooy ki nga xam ne saa bu gisee ci yow ay ayib moo xam ayib bi wax la moo xam ayib bi jëf la dana la ko nëbbal suturaal la ba kenn du xam sa ayib yooyu te loolu lu ama am solo la te it suturaal ab jullit moom bu dul mbokk ak leneen sax ñoo ci yem ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo moo koy moo ko santaane digle ko di wax ci xadis ne man satara musliman satarahu laahu képp koo xam ne suturaal nga ab jullit suñu borom bi subhanahu wa taala dana la suturaal kon noonu mooy kooku mooy mbokk dëgg-dëgg wala kooku moo di ab xarit dëgg-dëgg sëriñ bi rek radiyallahu anhu digal la foofu ne saa boo xamee ne sëriñ bële mu la digalan ca kaw xool nga ba ñàkk nga chance ba dajewoog sëriñ bu mel noonu nee na kon na nga fexee am mbokk yu mel nii waaye na nga fexee am mbokk yoo xam ne saa bu la jamono jàppee ñu man laa dimbali waaye saa boo xamee ne yaa ngi ci ay tolof-tolof yaa ngi ci ay jafe-jafe boo geesoo man leen a gis ngir ñu wàññil la sa jafe-jafe yooyee ak sa métit yoo yooyee nga xam ne ca nga nekk mu ne faxat zakartu tudd naa jumlatan mbooloo minal adabi ci ay teggin taq di yooyu dana facc kulla arabin jëpp aajo liman ñeel ka nga xam ne laazamaha taqoo na ko ne na téere bi de tudd naa ci ay teggin yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne mën naa fajal aajo képp koo xam ne taqoo na teggin yooyu ne na teggin yi nga xam ne moom la tudd ci téere bi de bari na bari waay boo xam ne mën naa fajal aajo képp koo xam ne taqoo nga teggin yi di ko jëfe waaye taqoo nga ko di ko jëfe ànd ci ak ak ragal yàlla waaye ànd ci ak ak sellal waaye ànd ci akuk jaamu yàlla bu baax a baax a baax nee na sëriñ bi nee na képp koo xam ne taxoo nga teggin yi nga xam ne moom la tudd fii ci téere bi nee na say aajo mën na la man man man na cee ma say aajo mën na cee faju bu baax a baax a baax a baax ndax nee na kaafiyatan aji doy la li man ñeel ka nga xam ne te am malaa seetantal na laxaa ñeel ko saafiyatan aji saafara yi aji saafara la li man ñeel ka nga xam ne xadaami laa jëfe na bihaa ci moom dana it teggin yi nga xam ne moom la tudd ci téere bi day ay teggin la loo ay teggin la yoo xam ne dana jariñ maanaam dana doyloo képp koo xam ne setantal nga teggin yi de da nga ko doyloo maanaam dana la doy waaye képp koo xam ne setantal nga teggin yi te di ko jëfe ne na mën naa doon saafara soo xam ne lépp loo maroon ci ay teggin wala lépp loo xam ne moom nga bëggoon a am ci ay teggin bëgg ko cee xam sëriñ bi ne na boo seetee téere bii jàngat ko te setantal ko ne na lépp loo xam ne moom nga ci mébét ci wàllu teggin ne na da nga da nga ko am ba doyal sëkk ndax tudd na ci lu bëree bëree bëri ci ay teggin kon téere bi lu doylu la ci wàllu teggin waaye sëriñ bi ne na képp koo xam ne da ngaa am maru bëgg xam ay teggin ba man koo jëfe sëriñ bi ne na boo takkoo téere bii rek di nga xam ne tudd naa ci ay teggin yu bëree bëri yoo xam ne mën naa doy nit ki nga xam ne seetantal na ko waaye taxaw na temm ci jëfe ko kon képp koo xam ne jàng nga téere bi di nga xam ne loolu sëriñ bi wax ci mujj gi boo xoolee téere bi di nga ko ci gis bu baax a baax a baax a baax ndax am na ci bu baax a baax a baax ndax benn fànn goo xam ne sëriñ bi bàyyi bàyyi na ko ci téere bi ci loo xam ne teggin da caa war a dox te sëriñ bi tudd ko jàpp nañ ne nekku ci lépp rek sëriñ bi radiyallahu anhu tudd na ko ci biir fi nga xam ne mooy téere bi mu ne dalilatan ab tegtal la lisil xijaa ñeel boroomum xel ala furuu'in ca bàngaas ya ala furuu'i zalbaabi ca bàngaas yi yii la bunt wala bii la buntu iniqtadaa ndeem roy nga bihaa ci moom maal xusuu'i ànd ak ragal yàlla dana kon téere bi dalilatan ab tegtal la lisil xijaa ñeel boroomum xel ala furuu'i zalbaabi ñeel bàngaas yi bii la buntu iniqtada ndéem roy nga bihaa ci moom maal xushuu'i ànd ak ragal yàlla sëriñ bi radiyallahu anhu ne na téere bi da ab tegtal la ci képp koo xam ne am nga am xel ab tegtal la ci yow ni mu doone ab tegtal ci yow mooy li nga xam ne moom la fi sëriñ bi radiyallahu anhu tudd ci biir téere bi moom ngay nattale leneen li nga xam ne tudd ko loo ca mën a jëfe ci ay teggin nga nattale ko ak loolu ngir ne soo ko nattalee di nga xam na nga ko war a jëfe waaye di nga xam lan moo ci ay teggin nga jëfe ko waaye di nga xam lan moo ci juuyoo ak ay teggin nga moytandiku ko bu baax a baax a baax kon sëriñ bi ne la képp koy boroomum xel di seetantal ci sam xel soo nattee li nga xam ne mooy téere bi ak li nga xam ne moom laa ci tudd ci ay teggin nga roy ko ànd koo ko ragal yàlla leneen loo xam ne teew na ci sa kanam te nga war caa jëfandikoo ay teggin su ma ko tuddut sax ci téere bi da nga ko mën a nattale ba xam naka nga ko naka nga ca war a jëfe moo tax mu ne xataa yu kàmmi la ba mu matale fu nuunal adabi mbooleem fànni teggin su fekkee ne yaa ngi jëfe loolu mbooleem fànni teggin yi rek da nga ko matale waaye lépp loo xam ne moo aju ci teggin dootoo ci am benn jafe-jafe da nga xam naka ngay jëflante ak ñëpp ñëpp kon téere bi ab tegtal la ci lépp loo xam ne mooy ay teggin ju nit ki war a dunde waaye lépp loo xam ne mooy ay teggin goo xam ne moom la nit ki war a bàyyi xel bu baax a baax a baax kon téere bi ab tegtal la ci loolu mu ne summata min taraiqi taaddubi topp bokk na ci yooni teggin fi'luka sa jëf maa la nga xam ne nazarta da nga xool bistihsaanin ci ak rafetlu wa tarkuma ak bàyyi la nga xam ne nazarta xool nga ko bistihjaanin ci ak juunlu maanaam ak ñaawlu sëriñ bi ne na bokk na ci yooni teggin ba tey tamit lépp loo xam ne gis nga ko xam ne lii kat rafetlu naa ko jëf ju rafet la joo xam ne gis naa samam xel rafetlu na ko te xel mu rafet laa yor bu boobaa na nga xam ne loolee dëppoo na ak ay teggin lu ñu war a jëfe la waaye lépp loo xam ne it xool nga ko xam ne lii dafa dafa juuyoo ak ay teggin na nga xam ne loolee lu ñaaw la waaye na nga ko teg ci suuf boo ko naroon a jëfe ngir wuute gi nga xam ne moom la wuute ak ay teggin waaye juunlu gi nga xam ne moom la def kon ne na jëf li nga xam ne moom nga gis rafetlu ko ne na loolee day su sam xel rafetee nga rafetlu ko na nga xam ne loolee dëppoon ak ay teggin waaye lépp jëpp jëf joo gis nit jëf ko ba pare nga ñaawlu ko sam xel ñaawlu ko na nga xam ne loolee dëppoowut ak ay teggin te na nga ko moytandiku bu baax a baax kon ne na loolu tamit bokk na ci yoon wi nga xam ne nit ki mën na cee jaar ngir fàggu li nga xam ne mooy ay teggin gis jëf ju rafet joo xam ne nit da koo jëf sam xel rafetlu ko nga xam ne lii de diine rafetlu na ko nga roy ko ca waaye gis jëf joo xam ne nit da koo jëf te dëppoowut ak njàngaleem lislaam nga xam ne lii lislaam daf koo ñaawlu te it xel mu rafet rafetlu ko nga teet ko ne na loolu tamit bokk na ci yoon wi nga xam ne nit ki mën na cee fàggoo ay teggin bu baax a baax a baax mu ne wa baaduhum kenn ci ñoom xii la waxeef na ko waxeef na lahu ñeel ko man addabaka ku la yar ay lu mu ci namu man man iqtadayta ci kan nga roye bihi ci moom xatta hazzabaka ba mu yar la fa xaala mu wax kuntu nekkoon naa addahra diirub jamono am zuru di xool ilaa jahli lazi jëm ci réeru ka nga xam ne dalaaluhu ak réeram nga xadim jalaa feeñ na summa akunu topp ma nekk zettina bi di aji teet anhu walif jëfam joojee ne na day mosoon nañoo wax nit ne ko yow kan moo la yar dañoo gis ci moom ay teggiin waaye gis ci moom sutura gis ci moom ab yar boo xam ne yarub lislaam la ñu ne ko yow mii kan moo la yar mu ne man day dama doon xool su ma gisee nit koo xam ne day jëf jëfi ku réer may xam ne lii dëppoot ak lislaam ma tege ko nee bañ koo jëfe waaye su ma xoolee koo xam ne dafa jëf-jëf joo xam ne dafa dëppoo ak lu lislaam santaane bu boobaa ma fexey jëfe-jëf ju jëf ju mel noonu kon foofu mën nañ cee dégg ne nit ki su nekkee ak ak njabootam ci ni muy jëfee ak ñoom ak ni muy waxee ak ñoom rek ci loolu rek mën na leen cee yar kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñu moytandiku yenn kàddu yoo xam ne nit ki su ko waxee mën naa def ab jeexit ci tut tànk bi koy déglu waaye mën naa def jikko joo xam ne du dëppoo ak ay teggin ci tut tànk bi koy déglu moo tax sëriñ bi doon wax ci ginnaaw ne na nga tàmmal saw làmmiñ wax ju baax ndax wax ju baax soo ko tàmmalee saw làmmiñ da nga ca am tuyaaba waaye dana na ca fegal wépp lor ndax tey jii ci misaal su fekkoon ne tey jii nit ki dafa nekk ak doomam di ko woo wooye ko noo xam ne lislaam gërëmu ko bu boobaa doom ji bu déggee loolu mën naa jàpp ne lii luñ war a roy la su ko defee mu roy ko bu ëllëgee wax lu mel noonu fekk na moom ci boppam moom moo ko nàmpatal ci loolu ndax moo ko wax mu dégg ko mu jàpp ne lii lu mu war a roy la kon nit ki war naa fexey ba tàmmal aw làmmiñam wax ju baax comme ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi waxe ci bayit bi nga xam ne moo weesu te mu cay wax naa awwid lisaanaka xawla alxayri tafus bihi wa tukfa kulla dayri yonente bi saa sallam di waxaat ci xadis ba tey ne képp koo xam ne gëm nga yàlla te gëm bis penc na ngay wax lu baax te noppi kon nit ki suy yar ak njabootam wala képp koo xam ne moom lu bëgg a yar nam koy yare moom ci jëmmi boppam su yaree jëmmam bu boobaa ki nga xam ne moom la bëgg a yar di koppi ci moom di di di di di jëfe li nga xam ne moom lay jëfe moom ci wàllu boppam boobaa yar ba mën naa gën a yomb lool waaye su fekkee ne da ngay yar nit ba pare nag wëlbatiku di am neneen noo xam ne noon nga noon nga noon nga melowoo loolu mooy say jikko di jikko yoo xam ne dafa wuute ak lool juuyoo ak lool li nga xam ne ci nga koy nàmputal te di ko ci yar bu boobaa loola waxuñu ne yar ba du mën a nekk waaye mën naa jafe lool lool lool lool kon nañu fexey ba gone yi nga xam ne ñoom la ñuy yar wala képp koo xam ne moom la ñu war a yar ñu fexey ba bàyyi xel ci loolu ñu bàyyi xel ci jëf yi ñuy jëf ci seen kanam muy doon loo xam ne lu dëppoo ak sharia la waaye wax yi ñuy wax ci seen kanam muy doon wax yoo xam ne yu tegginu la wax ju lislaam gërëm la waaye bu ñu wax mukk loo xam ne bu ñu ko waxee ñoom bu ëllëgee bu ñu ko waxee ñu mu man ñoo métti waaye it loolu day dem ba ci seenu col ak yépp ñuy fexey bay sàmmonte ci li ci diine wax su ko defee loolu mooy li nga xam ne mooy yombalal nit ki ab yaram waaye mooy yombalal nit ki yar bi nga xam ne moom la bëgg a yar ak njabootam mu wax ne huna fii intahat la mate xaatimatul jawaabi lii tëj tontu la nee na sëriñ bi radiyallahu anhu nee na kon fii fi la lii tëj tontu la mate ndax ba ñuy tàmbali téere ba waxoon nañ ne dañoo sàkku woon ci moom ngir mu mag ñi dañoo sàkku woon ci moom mu bindal leen téere boo xam ne day wax ci ay teggin kon sëriñ bi radiyallahu anhu nee na téere boobu fii nii la mate kon ci tomb bi nga xam ne ci la doon wax ne nit ki dañ koo gis mu yaruñu laaj ko ku la yar mu wax ne daa da daan gis nit rek muy jëf-jëf ju baax mu koy toppandoo waaye muy jëf-jëf ju safaanoo muy moytandiku di jëf-jëf ju mel noonu kon foofu la téere bi yam la wax suñ ñëwaatee incha allah yeggale li nga xam ne moo ci des yaakaar naa li ci des jamono ji bareetut kon ñi ngi tuub bu baax di jéggulu di wàcce foofu suñ kàddu di wax ni in uridu ila al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu